من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا ومولانا محمد بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu Walfadjri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del si waat suñu quraan bët bu set rek ci waxtu wi ba tey rek ñi ngi ci daaraay démb yi nga xam ne ñoo jur daaraay tey al oustaz Ahmed Sané waaxu na ba ca golfu ci daaraay démb yi jur daaraay tey ci daaraay suñu maam xaaji Abdoulaye Saw nekkoon nitu alquran ki jël dundam lépp joxoon ko alquran ñu tànn fa benn ndongo bu tudd Mouhamed Lamine Ndiaye mu war ñoo jàngal ayaat yi ñu fas yéene firi sëñ sëñ Mouhamed bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم
تبارك الله جرجف Mouhamed Lamine Ndiaye ci ayaat yu am solo yi nga jàng ak njàngin wu rafet wi nga ko jàngee yal na yàlla wàccee barkeb alquran ci sa kaw wàccee ko ci say waajur wàccee ko ci sëriñ daara bi nga xam ne moo sonnee ba nga mën a jàng njàngin mu rafetee nii waaye yàlla na ci yàlla dëgg ci loolu tamit wàccee barkeeb alquran ci ñun ñii ñëpp ak mbooleem fu jullit mën a nekk yàlla dëgg ci xaasal suñu waajur wu tedd wa nga xam ne moo xàlloon yoon wi fonkoon tafsir bi lool mu bokk ci programme yi mu gënoon a fonk tabaarakallaahu di seydi muhammadul amin Niass nga xam ne lu yëngu ci réew mi rek xel dañ ne ah sidi de waroon na fee ne waaye tamit lépp lu xew lu nit war a waxati wala nga koy wax rek soo delluwaatee ci li mu waxoon looy wax nga ne ah sidi waxoon na ko de moo tax daal dem na waaye ñaari baat la bàyyi ñaari kàddu la bàyyi gannaawam sidi waroon na fee ne ak sidi waxoon na ko kon nag kooku kenn mënu koo fàtte ndax yàlla da koo may dañ koo denc ci xolu nit ñi yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem te yàq yàlla yokk leeram njabootam gii mu bàyyi fi timit cheikh mouhamadul hafiz jiite leen yàlla na yàlla dëgëral leen sàmm leen aar leen yiir leen waaye tamit entreprise bu am solo bi mu bàyyi fi tabaarakallaahu personnel bi fiy liggéeyee yépp yàlla na yàlla sàmm leen taxawu leen lépp rafet na tabaarakallaahu lépp baax na yàlla na sax te yàlla na gën a yokk yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci barkeeb aayaat yi ñi fas yéene firi muy watlu alayhim aaya la yoo xam ne yàlla dafa ci nettalil yonantu bi ak aw xeetam sallallahu alayhi wa sallama histoire bu yàgg histoire bi njëkk a xew ci kaw suuf ci tuur deret ci diggante ñaari doomi aadama yi nga xam ne ñoo bokk benn ndey ak benn baay moo tax bokk taxuta manee lii mu dal tamit ci taawam taawu yonentu yàlla aadama mooy xaabil yàlla natt ko mu nekkoon agresseur waaye ci nga ciy déggee ci aayaat yi ne baax li muy jafe-jafe baax li moo ko gën a jafe nit mën naa baax waaye taxut mu baax le baax le tamit li muy jafe-jafe baax le ñépp moo gën a jafe ñaareel ku am koy nëbbu rek wala ku am koy feeñal rek am nga koy nëbbu moo tax kon bu la yàlla mayee nga baax boo baax lewut ba tey santal yàlla baax le yombut bu la yàlla mayee nga baax baax le waaye ñépp ñi nga am ñépp baaxuñu am na ki ñoo mën a nëbbu waaye xam na ki ñoo mën a feeñal mu ñeexal ñi nga baaxle ci ñi nga baaxle wut kon yéen borom kër yi may dégg yàlla nattu leen ngeen am ay doom yu leen të ñii ña ngay dorogewu ñii ña ngay agressé ñii ña ngay sàcc ñii ngi dugg ci ay luuxur yoo xam ne fu ne dem nga fa waaye sa xel daal fu mu ne nii daal mujj na toog yàlla rek nga ciy xaar waaye waaye kon mu ñeexal taawab aadama bii ci li la dal ndax aadama li muy baax baax baax lewut taaw yonentu yàlla noox li muy baax baax baax lewut doomam di kanaan yonentu yàlla luut li muy baax baax baax lewut soxna muy waa ilatu moo jiite woon lobbi ba ca góor jigéen ña ne bu ngeen gisee ma taal saxar ci bëccëg bi rek gaa yi ñëw nañ ñëw leen su ngeen gisee ma taal safara ngeen gis lumière gi ci guddi gi rek ñëw leen moo jiite woon lobbi ba te ab yonent di ko denc mu jiite góor jigéen ña loo boo baaxlee yàlla nattu la nga baax li nga nga maanaam baaxlee hoo jabar mu ñëwee ko yonent yàlla noox jabaram soxnaam ku bon la woon di waahilatu kon lii lépp yàlla da ko ciy jàngale lii muy jàngale nag li gën a wér mi ngi xewee màkka màkka ci suufu màkka la xewee ñii ne mi ngi xewee suufu yaman imaamu tabari yu moom dafa ne màkka la xewee rayga fekk na booba suñ maam Adama dem na aji ba mu ajee di ñibbisi mu gis rek jaww ji daal soppeeku na poussière bi daal mi ngi yëkk mi ngi yëkk mi ngi yëkkatiku mu gis xobi garab yaa ngi ruus mu mos ci lenn ci caf ngaay xobi ci caf ngaay meññant yi yii forox yii safkaani yii kenn mënu koo lekk te loolu mos taxam mu ne ah am na lu xew de xaw ma lan la waaye am na lu xew ci la ñëw nekkee li xew kat këram la xewee ba mu ñëwee rek mu fekk fa ñaareelu doomam muy Haabil mu ne ko an sa mbokk ma xaabil mu ne ko waaw danga maa joxoon xet ne naa ko sàmm ba nga ma koy laaj ku ñàkkoon ku ñàkkoon yar la amutoon benn respect ci baayam mu ne ko da nga koo rey rek boo demee booba nag boo mosaana rey nit wala nga rey gàtt deret ja tuuru ci suuf ke saasa rek suuf sa dafay lekk maanaam deret ja keroog nag la suuf gëj a lekk deret ba bis ni ki tey aadama ñaan booba léegi boo rendee gàtt wala nga rey nit deret ja tuuru da ngay fekk lu mu yàgg-yàgg rek da nga koy fekk ca kaw suuf sa waaye booba da koo rey rek deret ja gaaw suuf sa lekk ko mënta joxe benn màndarga léegi nag rey na ko fekk ci li tax mu rey ko la ko sooke yépp mbiram jigéen fitna bi njëkk a xew ci kaw suuf jigéen a ko sooke moom Qaabil dafa amoon séexandoor bu ñuy tuddee Iqlima am na sax ci téere yi ñu wax ne Haljaana la juddoo moom ak séexandooram bi mu rafet lool séexandooram bi rafet lool ñaaril doomu aadama mooy Haabil séexandooram ba mooy Layuusa ñaaw lool waaye sariya ab yonentu yàlla aadama lim doon jëfandikoo mooy ñaari séex yi bokk benn biir mënuñoo takkante dañuy jël séex bii di góor juddu maanaam deux mille vingt ñi boole koog séex bee di jigéen juddu deux mille vingt deux ki nga xam ne mooy góor ga juddu deux mille vingt deux ñu indi ko ci de ki jigéen gi nga xam ne moo moo juddu deux mille vingt yonentu yàlla aadama ne ko nag lii la sama sariya maye ma jëlee ko ci sama borom kon nag sañoo takk iqlima mais la yow saa ngay takk mu ne ko non du ma ko takk ku ñaaw kii man du ma ko takk te lii nga may digal sama borom waxut ko fenn danga maa bañ rek bëgg maa xeñ ndaw si mu ne ko waaw su fekkee dama sa borom ma yaa wax ne waxu ko kon yéen ñaar dem leen ngeen jaamu yàlla bu ngeen jaamoo yàlla ku ci yàlla nangu sag jaamu rek nga xam ne loolu moo moom ndaw si moom Qaabil sam maanaam dafa nekkoon ab baykat mu dem ut jugub ju bon yóbbu ko ne moom laa jaamoo yàlla ndax boo boo daan jaamoo yàlla ci wàllu saraxe doo ko jox sa moromam nit da nga koy teg ci bayal rek kële moom di haabil ab sàmm la woon dem ut xar mu rëy mu mag ñëw ne Adama lii laa jaamoo yàlla mun a jël leen seen ñaari jaamu yi ngeen teg ko ca bayal bële ñu toog rek safara wala niir lakk ko wala niir wi ñëw yëkkati ko ci nga dégg ñoom ñu daan wax yonantu bi ne ko suñu borom daal dafa kole rek ñun ne ñun duñ topp benn yonantu lu mu indi jaamu yàlla goo xam ne taakuluhu naar inna laa ahida ilayna allaa nu'mina li rasuli hatta yaatina bi qurbaanin taakuluhu naar kon nag ba loola amee nag jaamu yàlla ak haabil gi yàlla nangu ko yëkkati xaram ma jaamu yàlla ak xaabil beeg dugub ju bon ja yàlla baxi ko fa mu ne ko lu ma la waxoon lii ci yàlla la baxee ko mu ne ko waaw daal yàlla bàyyeekoo ci yow la bàyyeekoo yëpp moo ci mën a am yow moom xaw ma kan mais dinaa la rey te ndaw si buñ koy xëccoo maag yow dañ fee bokk nekk mais boo fi neexatul kay maa maa koy jël mu bàyyi ba mag ja rakk ja di nelaw rakk ja sax moo ko xëppoon doole mën na koo duma ndax léeg-léeg nga mag nit mu xëpp la doole mu ñëw rek jël xeer rek dóor ko ko fekk ma ngay nelaw ñenn ngeen ne déedéet nelawut sax dafa jël xeer rek songu ko. waaye foofu ci sarihab yonentu yàlla aadama listinte défense dafa xaraamoon bu la nit ki bëggee rey da nga koy jébbal sa bopp rek mais xamoo droit di jël ngànnaay di ko jéem a rey comme yooyu yooyu mu dafa xaraamoon ci seen sariya bu la nit bëggee rey taxawal rek nga taxaw mu rey la moo tax moo ko ëpp doole fuuf ba mu ko bëggee rey da koo jébbal boppam rek waaye bu ci sarihab yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama dagan na nit ki bëgg laa rey amoo benn pexe moo mën a jaaree lu dul rey ko boo ko rayee kenn du la rey boo ko rayee doo joxe diya ca kooka kenn du ko doo ko jox benn diya waa ja ñëw bëgg laa rey amoo fenn foo mën a rëccee lu dul rey ko rey ko dara nekkut ci dara nekkut ci ci jamonoy Seydina Omar dal na waay benn waay Omar dafa toog di lekk gaa yi dàq benn waay benn saxaaba mu yore jaasi jaasi jaa ngay toq deret Omar ne lan la ñu ne ko kii de moo rey suñ mbokk mi mu ne ko yaa ko rey mu ne waaw waaw noo ko reyee mu ne dama koo fekk ci diggante sama ñaari tànki soxna man daal su fekkee kooka moom la moom laa rey ki ma rey daal ci diggante sama ñaari tànki soxna laa ko fekk mu sàngoog moom ma jël jaas yi dóor ko ko ñu ne nit dee na kooka de laa rey Omar ne ko bu ko gaa yi bu ñu ko delluwaatee dolli haatal fa in aadu fuut kon ku ñëw bëgg a dal ci sa kaw soxna nga protéger ko ba rey ko mbaa li xew léegi gaa yi jël ay 4x4 dem ci dëgg àll dem ci àll bi songu nit ña ngeen jël riposté wu ba rey leen yow kenn du la rey te doo ci xam benn bàkkaar te ko ñooñu nga rey tamit doo ci jël maanaam doo joxe diya waaye sariya bi yonent bi lim bañ mooy rayante rayante nag moo bëri bàyyi ma rek ma rayante ak moom su ko defee jël jaasi mu jël jaasi mbaa mu jël ngànnaay ngeen rayante yéen ñaar ñëpp safara ñu ne ko yonent bi ki rayee kay moom li ko yóbbu safara xam nañ ko mais ki ñu ray nag mu ne kaana xarisan ala qatli aqihi dafa nekkoon ku xir ci ray mbokkam kon nag yàlla dogal ñu ray ko moo tax mu ne idal taqa idal taqal sayfaani fal qaatilu wal maqtul fi naar sahaaba yi ne ko waaw qaala ya rasulallah maa baalul qaatili mu wala maa baalul maqtul ni boom ko waxee mu ne ak kaana xarisan ala qatli aqihi loolu waral kon loolu moo ko yóbbu safara kon sariya bi nanguwut rayante bàyyi leen ma ma rayanteeg moom bañ fa ray la safara nga jëm yow moomu nga xamee tamit rayaguñ la safara nga jëm boo dee fekk fa sa bokk ba waaye nag li li ñu bëgg laa ray nga défendre sa bopp ba ray bakkan dara waaye boo jébbalee woon sa bopp nag bàyyi ñi ray la moo gën loolu la Seydina Ousmane defoon bañ ko bëggee ray waa Madina ñu ñëw ne dañuy dañuy dal ci kaw waa Misra dafa ne bàyyi leen leen rek yàlla dogal na lii ba pare ba ma yonent bi wax dañ may ray yàgg na ba may wax ne su ma dee aljaana laa jëm yàgg na moo tax kon nga jébbale sa bopp rek taxaw ñi ray la sax moo gën sax nga nga nga nga nga def safaan ba waaye ala kulli haal daal man qutila duuna maalihi fa huwa shahidun wa man qutila duuna irdihi fa huwa shahidun demeet kon nag loolu lay wax si nii mbir mi nag ma ngi xewee ñu ne màkka rayante gi am na jaww ji soppeeku na aadama ba mu ñëwee mu ne waa jaww ji soppeeku na di lii lu ko waral ñii ne dafa way ne taxayaratil bilaadu wa man alayha fa wajhul ardi muxbarun xabiix baxru waafir la waaye nag ñu ne déedéet aadama mënutoon a way aadama déggutoon sax arab saryaani la daan làkk waaye nag dafa defal marsiya doomam jii ñi rey ci làngu saryaani ya wax jooja mu wax ko nag benn waykat def ko ci arab mu nekk lu fi des waaye nag aadama moom nekkutoon waykat ndax yàlla ni mu dàqalee way ci yonantu bi ni la ko dàqalee yonantu yëpp ci wa maa allamnaahu shi'ra ci ah ci yonantu bi wa maa allamnaahu shi'ra ci noox wa maa allamnaahu shi'ra ci sayyiduna Isa amul benn yonantu buy way kon loolu mooy li gën a wér su ko defee nag ray googu nag la yàlla nettali si nii moom ngay moom lay wax ne watlu alayhim téye leen seen baaraam ci foofu moo tax mu ne watlu jàngatalal yow yonantu bi alayhim ci banu Israil mii nga xam ne seen mbon gi yépp ak seen caay-caay gi ñi ngi ko royee ci taawab yonentu yàlla aadama mi xaabil roy nañ ko ci ñàkk kilifa roy nañ ko ci féttirlu roy nañ ko ci tuur deret jàngatal leen ibnay aadama ñaari doomu aadama ya bil xaq ci jàngatal ak dëgg id qarraba ba nga xamee ne jaamu nañ qurbaanan ak jaamu fa tuqubila nanguleef min ahadihimaa ci kenn ci ñoom ñaar kiñ nangul mooy haabil walam yutaqabal nangulee fut min al axiri ca kaneen ka kañ nangulut mooy maanaam xaabil xaala ki nga xam ne moom lañ nangulut di xaabil muy mag ja wax rakk ja ne ko xaw ma kan waaye yow la aqutulan naka dinaa la rey de xaala rakk ja ne ko lu tax nga may rey mu ne ko dañ laa nangul te nanguluñ ma ta kon yaay jël ndaw si mu ne ko innama yataqabbalu daal dina nangu laahu yàlla minal muttaqina ca way ragal yàlla ña yàlla mii nangu kat ñuy ragal rek jaamu ko ci ragal lay nangu loolu lu ma ci man waaye li ma lay xamal daal la in basatta su fekkee ŋaat nga illa ya jëmee ci man yaddaka sa loxo li taqutulu nii ngir nag ma rey maa anaa déet man bi baasitin may aji ŋaat yadda ya sama loxo illa ko jëmee ci yow wax naa la foofu dafa saa'il dafa xaraam moon ki seen sharia ku la bëgg a rey da ngay jébbalu rek baxee ko sa bopp waaye doo fa nekk rayanteeg moom moo tax ba mu ne ko boo tàllalee sa loxo xàcc jëm ci man di ma rey man du ma xàcc ngànnaay jëmee ko ci yow dama lay jébbal sama bopp rek moo tax mu ne ko maa anaa déet man bi baasitin may aji tàllal wala may aji ŋaat ya day sama loxo illee ko jëm ci yow li aqtulaka ngir naa la rey lu ko waral inni naka man axaafu damaa ragal laaha yàlla rabbal alamin yàlla mi borom mi ndeefi ragal gi ma ko ragal a tax du ma rey nit te man bi beneen bi mooy inni naka man uridu bëgguma an tabu a nga dellu bi ismi sama bàkkaar wa ismika ak sa bàkkaar bàkkaar bi nga ma rayee ak bàkkaar yi nga amoon boo ko boolee fa takkuuna da nga mujj min ashaabi naari ca mboolo ca mbooloom safara ma te wa zaalika loolu jazaa'u zaalimiina mooy fay ak way tooñ ñi te loolu bëgguma ko waaye boo bàyyee uridu utululoo ko laa rek dafay tekki ne ki raye ku bon la muy xaabil waaye ki ñu rey di haabil tamit ku bon la ndax jullit warul yéene moromam jullitam muy dem safara jullit warul yéene moromam jullitam muy gàdd muy dollee ko ci bàkkaar moo tax boo waxee inni da ngay wax ne uridu uridu bi maanaam laa uridu bu la neexee tamit tamit nga jël laaga taqale ko ca an an an tabu a maanaam an laa tabu a loolu mu ñaar yëpp la ci neex bu la nga ne indi naka man uridu dama namm an tabu a nga ñàkk a dellu bi ismi wala nga ne indi naka man uridu bëgguma an tabu a nga dellu bu la neexee sax nga def ko tamit istifaam ne ah inni moo fa nekkoon ndax man mii uridu danaa bëgg an tabuwa nga maanaam ngay dellu loolu bëgguma ko ndax dëgg yàlla kon nag li nga bëgg a def man duma la ci fekk kon gis nga ko ci sariyaab aadama ku la bëgg a rey rek da nga koy bàyyee sa bopp waaye doo fa nekk di reyanteeg moom moo tax rakk ji ñi rey di haabil moo ko ëpp doole fuuf moo man magam ji fuuf man koo duma waaye bi magam ji amee xol bu bon ne dafa koy rey mu ne ko d'accord dama lay bàyyee sama bopp rek nga rey ma jël na xeer dóor na ko ko ci bopp deret ja sotteeku suuf lekk ko ca saasa mu dee am na ñu ne sax ni mu koy rey iblis moo ko koy wan waaye lu ci mën a am daal rey na ko mooy deret ji njëkk a tuuru ci kaw suuf bi mu ko reyee aadama mer na mer goo xam ne téere yi ne nañ toog na téeméeri xat yoo xam ne réexut ngir mer téeméeri xat yoo xam ne dafa toog noppi rek réexut ba mu ko reyee nag la jël seexandoram bi iqlima mi ñu ko doon xeñ daw ak moom dem yaman dem dëkki foofa seytaane feeñu ko ne ko boo gisee sa mbokk mii jaamu yàllam gi safara ñëw yëkkati ko lekk ko te yow sa jaamu yàlla gi safara lekkut ko dafa doon jaamu safara di ko nëbbu rek kon demal nga jéem a jaamu safara foofu la jël ab taalam di jaamu safara mooy ki njëkk a jaamu safara ci kaw suuf nekk fa nag nekk agresseur ku ko romb rek mu sànni la ku ko romb rek mu sànni la xeer benn bis nag doomam ju gumba romb ko doomam ju gumba jooju doomam di ko xommat ba mu ko rombee rek mu ne ko sa baay xaabi la nga nale de rek moom doom ju gumba jooju jël aw xeer rek sànni ko yàlla jubal saan wa mu rey baayam loolu lépp lañ lay fay mu ne ko a rey nga sa baay di mu wëlbati ko pes doom ja mu mujj doom ja dee mu daan daana wax ne rey naa sama baay ci saan pes naa sama doom ji maanaam rey naa sama baay ci saan rey sama doom gi ci pes mu mujj ray ray ray loola gis nga lu bon moom dafay dafay topp deret léegi nag foofu la nekk ba dee am na ñu ne ña ko suulu yaman am na benn xabru bu fa nekk boo xam ne xabru bu gudd a gudd la ñu ne foofu lañ ko denc ñeen na ngeen a ña ko denc saam lu ca mën a nekk daal dégg a denc nañ ko boo demee ci téere yi comme dañuy werante jaamiwul ahkaam loolu la wax waaye lu ca mën a am daal dee na léegi nag yàlla dogal kii des na fi léegi nag yàlla remplacelee aadama jeneen doom ju ñuy tuddee fiisa fiisa gannaaw bi nga xamee ne xaabil rey na xaabil bañ teg ca juróomi xat ci la juddu fiisa boo ko jëlee ci langue saryaani nga teg ko ci arab mooy tekki hibbatullaahi may ak yàlla yàlla dafa dëfalee aadama ne ko ki nga ñàkkoon kat remplacer naa la ko sa doom ji moom kenn rek la yàlla may ci ñu aadama am aadama ñaar fukki biir la am waaye ñaar fukki biiram yépp séex lay doon doom ju góor doom ju jigéen mennam siisa moo ci juddu te amul wéttandoor moom kenn rek di kenn moom la maam xalifa ne wa huwa siisul wasiyu man kaana fardan xaytu kaana tu amanil abnaaw moom kenn kese ndax booba tamit loolu loolu bu amul du sotti ñaari jigéen na fi jigéen ñi xëppagum góor ñi moo tax jigéen ñi yàgg nañoo xëpp góor ñi de dégg naa ñoo ñu xëpp 52 pour cent lañ moo tax bu ngeen jëfut maanaam yéen borom seen si jabar yi bu ngeen dolliwut du baax de foog ngeen def ñaar ba ñett ndax la société boo dem jigéen ñaa xëpp góor ñi xam naa sax actuellement bu ñu ko compté li ñu xëppee xëpp na loola moo tax bu ñëpp xamee ci benn rek du baax kon jigéen ñi xëppagum góor ñi moo tax yàlla wàññi. léegi nag pour ñu war a tolloo fiisa moomu nag moom la ñuy mujj dénk leer ak yonentu yàlla muhammad ga sallallahu alayhi wa sallam bi mu toxaloo ci aadama rek ci fiisa la dem direct yàlla ne ko maa la ko defalee lu la métti woon ci sa doom jële na la neex ci sa doom ji moom dénk dénk nañ ko leer ga ndey saanam mu toxaloo ci moom fiisa tamit la yàlla may maqaama bu day nii mbooleem doomu aadama yi aadama doomam yooyu ma wax la seex yi ak seen doom ya kenn continué wut ñëpp a dee koo fi gisati muy nit li ko doree ci aadama ba ci noox rek ca siisa la soqee ko ngir tey aadama yëpp ñaar fukki doomam yaag yu góor yaag yu jigéen yépp seen ngirte ya benn continué wut ci kenn xamul ca doom ju continué moom kenn rek siisa la ci ngirteem continué loolu moo xam moom la yonentu bi am sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi juróom-ñaari bant la am waaye ngirteem lépp a raaf amul benn bu ci continué ku dul sayyidatuna Fatima moom kenn rek moo ci am njaboot gu continué koo fi gis ñu ne la sërif la doo ñu ne la sërifatu la ak ci fu mu mën a soqee koo ci surafaaw yi boo ko dàqee rek menam Fatima moo ko meññ waaye li ko doree ci aadama ba ci noox koo fi gisati muy nit rek boo ko dàqee ci siisa rek la soqee ko siisa bàyyi ko ci aadama gannaaw noox nag koo fi gisati muy nit boo ko dàqee rek ki noox la bàyyi ko moo tax ñu ko tuddee abul basaru saani yi ci des ñëpp dañoo dee fale ca ca ca tuufaan nga kon nag aadama ngóog ak ñaari doomam ya léegi nag maanaam siisa des na fa doonu leer ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga léegi nag loolu lay wax si nii ci watlu alayhim na ba am nay aadama loolu leer na léegi nag bi mu ko rayee ñu ne boot na ko diir bu yàgg léegi-léeg téere yi dañuy xaabaabal am na ñuy wax téeméeri at téeméeri at boo ci bootee nit foo jëm mën ta nekk yàgg na daal xamut sax nuñ koy suulee ndax mooy nit ki njëkk a dee mu mujj tàyyi lool sonn lool xamut nuñ koy suulee bu ko alquran waxutoon kenn du ko gëm ni ñuy suulee nit baaxaañ moo ko wan nit yàlla hebal ñaari baaxaañ ñi xeex benn ba rey moromam ma commencé gas ka tànk ya ak ca gémmañ ga ba pax ma xóot mu jalañ ca moromam ma ci la ne ay yaa waylata ajus an akuna mithla hadha alghurab waaye man torox naa di ndax du ma toppandoor baaxaañ bii waay ni mu def mboq mi ma def ko sama mboq mi daa di gas ba mu xóot rek mu suul ca mbokkam ma kon gis nga histoire bi njëkk a xew ci kaw suuf ba yegg ci tuur deret jigéen a ko sooke la ko ñulug ba mu sooke ko xañaan la xañaan mooy bàkkaar bi njëkk a moyee yàlla ci kaw suuf moom moom la moo tax dañuy wax ne bàkkaar yëpp ñett rek ñoo leen meññ ñi leen tuddee ummuhaatu zunub ummuhaatu zunub bi daal mooy alxirsu wal xasadu wal kibru kibru muy rëy moo ñulug iblis ba mu bañ a sujootal aadama ci astakbarta astakbarta am kunta min al ali ci ma manaaka an tasjuda li ma xalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al ali ba muy wax ne ana xayrun minhu xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin kon foofu rëy la aadama tamit li ko ñulug ba mu def lim def ak nuñ ko mën a tuddee ba xasaali yu naan mooy yàlla rek ci saahir waaye topp yàlla ci baatin xiir rek la kuñ may ndakaaru ni mu toll wala lu ko gën a yaatu tere la ci génn kër seytaane ñëw na la kër gii nag moo dàq ci ndakaaru ndax moo jàkkaarloo géej gi ci hal aduluka ala shajaratil xuldi wa mulkin laa yablaa wax dëgg yàlla xiir mënu koo paase waaye tamit ñaari doomu aadama yi xaabil li koy yóbboo ba mu rey haabil du dara xañaan rek moo tax ñetti bàkkaar yi bàkkaar yoo mën a waxati ñett yi ñoo leen meññi ñoo meññi kabaa'ir yi ñoo meññi saxaa'ir yi ñoo meññi akbarul kabaa'ir yi ñoo meññi muxbitaat yi ñoo meññi sax muubiqaat yi xamul kenn ku mën a defati bàkkaar bu génn ñett ñi boo ca dàq rek am na lu ko liyee ak ñetti bàkkaar yi benn kon waaye ci ngay déggee ne dana bëri kër gu neex jàmm nekk fa ci ay mbokk waaye jàmm nga dana mujj soppeekoo jaamaarloo bu fa jigéen ña bëree rek bu fa jigéen ña bëree nga takk soxna kii takk soxna seen soxna ya bokk nekk ca kër ga rek bu yàggee ngeen tibbante tànk bëri na mbokk gu yàqu boo toppee tànk ba la ko yàq lépp xalaa kulli xaal boo toppee tànk yi fekk fa jigéen moo tax góor gu baax ba Alaaji Baakar dafa daan wax ne ñetti gétt ku loo ko xëpp ñëpp la coono ñu ne ko genn gétt mu ne gétt ak oto gétt ak fas gétt ak jigéen foo dégg gétt ak oto oto yu bëri laa amee ay karkaas la benn baaxu ca foo fekk borom fas yu bëri ay ràgge lañ foo fekk fu jigéen bëri ñaareel wax ju sew du fa jug moo tax mu ne gétt ak fas gétt ak oto gétt ak jigéen fuñ bëri wax bëri fa coono tamit du fa jeex mukk su ko defee kon histoire bi njëkk a xew ci kaw suuf la ko sooke jigéen la nañ mooy tundiku jigéen ñi maam alaaji maal daana toog ba ci kanam mu ne ñaari deel yi yàq nañ genn deel gi lu fi yàqu genn deel ga mooy diine ñaari deel ya mooy diinaar ak ak dirham mu ne dërëm yeeg diinaar yi yàq nañ diine de waaye ci ji jamono de bu ko doon waxaat dana wax ne ak genn nuun gi de mooy nisaawu yi nisaawu yi daal ak ñaari deel yële lu fi yàqu ci diine ji yàqu fi ci mbokk yi boo ko dàqee mo- moo ko yàq génn maanaam nuun géeg ñaari deel yi yàq nañ genn deel gi a dirhamu wa dinaaru wa nisaaw ñoom ñett ñii nii yàq nañ diine de yàq nañ mbokk gi yàq nañ société bi lu fi yàq boo ko toppee rek mu yóbbu la ca loola léegi nag mbokk ma dee na mënut koo denc ba baaxaañee wan niñ koy dencee moom lay wax si nii gannaaw bi mu ko rayee moo tax mu ne fa tawaxat jàppandal na fa tawaxat rafetal na la hoo ñeel ko nafsuhu bakkanam ba lu mu ko rafetal kat la aqihi rey mbokkam ma fa qatalahu rey na ko ca saasa fa asbaha moo taxin mujj na minal xaasirina bokk ca way perte ña ba mu ko rayee nag mënu koo suul fa baxasa hebal na laahu yàlla xuraa bañ baaxaañ yebaxasu koog dana jéqi boobu dana jéqi moom baaxaañ ba fil ardi ci suuf li yuri yahoo ngir na wan ko kay fa yuwaari naka lay suturaalee saw ata aqihi maanaam awraay mbokkam mi bu ko defee xaala mu ne yaa waletaa woonaa sama toskare a ajastu ndax damaa lottu an akuna ma nekk misla haasal xuraa bi kem baaxaañ bi fa uwaariya sabab sosu mën a suturaal saw ata aqihi méddam sama mbokk mi te mooy maanaam tàddu sama mbokk mi fa asbaha mujj na minal minal minal naadi mi ne bokk ci way réccu ña gis nga nit loo dëgër dëgër xol boo rayee nit rek réccu ko mënoo koo dëgëree ba boo rayee nit mën a ànd ak sa fit da nga réccu lu taxoon nga def ko de waaye moom tamit réccu na ngir ray gim ray mbokkam mi réccu na ngir li ko baayam jéppi réccu na ngir li ko li ko li ko yaayam jéppi réccu na ngir li ko mbooleem mindeef ya fa nekkoon di mbokkam ya ñëpp ko jéppi mu mujj nag ndeysaan wéet lool jël mbokk ma daw ak moom jëm yaman bu ko defee nekk fa di jaamu safara fa la nekk ba dee su ko defee kon nag ni ñuy suulee nit ki ko njëkk a wane mooy baaxaañ gis nga fii wax na ne kay fa yuwaari saw ata aq yi tudd na fii mbokk ñetti yoon bala ba ba ñaari yoon wax na maanaam fa uwaariya saw ata aqihi fa tawaxat lahu nafsuhu qadla aqihi boo jëlee alquran mbokk juróom-benn yoon rek la ñëw ci alquran ci juróom-benni maanaam alquran dana tudd mbokk namm ci koo bokk ak ndey ak baay kooku mooy fa tawaxat lahu nafsuhu qadla aqihi alquran dana tudd mbokk namm ci koo bokk ak baay rek waa ngeen bokk yaay rek mbaa ngeen bokk ndey ak baay moom la alquran ne fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudusu dana tudd mbokk namm ci koo bokk ak famille njaayeen ni yëpp njóobeen ni yëpp siise siise yëpp ay mbokk lañ koo bokk ak sant rek ngeen bokk famille rek boo xeboo ña nekk jalof ak ña nekk kajoor ak ña nekk saalum yëpp koo ci bokk ak sant bu ngeen dàqante rek mbokk ngeen moom la alquran ne wa ila samuda axaahum saalihan wa ila aadin axaahum huudan waaye sax dana tudd mbokk namm ci koo bokk ak métier koo bokk ak métier lu ngeen di def rek maanaam yéen ay mbokk ngeen baykat yëpp mbokk lañ moodu moodu yëpp mbokk lañ commerçant yëpp mbokk lañ mu ngi ci làmb ji yëpp mbokk lañ ñoom sax gaaw nañ koo comprendre koo ci wax mu ne kii sama mbokkam moodu moodu la kii sama mbokkam baykat la kii sama mbokkam commerçant la moom la alquran ne inna hadha axi lahu tisun wa tisuna naaja foofu métier la waaye dana tudd mbokk sax namu ci koo bokk ak bëgg-bëgg ñaareel nit ñi kenn ku ne koo bokk ak la ngay bëggee rek mbokk ngeen mbooleem ñi yëngu ci musique bi koo ci invité mu ne maag diw dara newut suñu diggante danañ danañ léeg-léeg sax ma bëgg a tëgg fenn ma xabal ma matériel léegi-léegi mu xabal ma ay nangam ñu ñu mbokk lañ ñi yëngatu ci arène bi yépp ay mbokk lañ koo ci wax mu ne keroog ba ma combat bi ba ma ko amee diw ak diw ñoo ma ci dimbale te mën naa xam koo ko dimbale ko sax boo léegi ñooy bëri kon lu ko waral wana sax naa maa fi suduri min xillin ixwaanan beneen mbokk gi nag mooy mbokk goo xam ne mooy diine mooy innamal muminuuna ixwatun moo tax boo bëggee noppalu koo gisati ne ko sama mbokk mi kenn mënta génn ci juróom-benn yi kenn ku ci mën a génn xamut bu leen meen boolewut gaño boole leen wala famille boole leen wala bokk bëgg-bëgg boole leen wala métier boole leen mbaa diine boole leen kon xamul kenn ku bokkut ak koo gis muy nit rek soo yeboo ne ko sama mbokk nga ñëpp a bokk rawatina nag suñu suñu réew mi dafa xat lu bon xaju fi ku fi def lu bon da nga ko wéetoo te ku fi def lu bon tëju lu bon la dana dëgg ak ay tànkam ba fekk la fi nga toog mu sottee ko ci sa kaw ak loo ko nëbbu nëbbu ak loo ko pexeel pexeel da ngay toog rek mbir ma ne maanaam kalaatewu ñépp a bokk loo fi déeyaaleeg nit ci lu bon dana senn loo fi déeyaaleeg nit ci lu baax dana senn suñ penc mi daal leen rek a fi xaj mooy jub lu fi nit nekkee lu dul njub da nga weeru kenn mënu ci dara boo xeboo nag ba nga koy def boo xeboo sax tëj sa bunt bi boo xeboo ba nga koy def kenn gisu la waaye boobaa wallahi miir miir bi mooy xëy rek publier ko waaw gaa yi xëy rek WhatsApp yi kenn ku nekk jox ko groupe yi su ko defee kenn ku ci nekk xëy jot ca doo ci man dara léegi nag ma ngay wax ca loola fa asbaa mi ne naa min ajli dalika tuur deret gii njëkk a xew ci kaw suuf banu Israayil dañ koo royee ci Qaabil nit ñu mënoon a tuur deret lañ yàlla ne nag tuur deret googu bëri ci ñoom ñu roye ko ci seen maam ju bon jii di Qaabil nga xam ne ku royeti nit ba ba àdduna bi tukki danaa ko ca sédd ca bàkkaaram ba te du wàññi ci bàkkaaram ki rey dara moo tax ma dogal ne ku royati nit maanaam dañ laa war a rey waaye fekk na fii nag mi ngi ci mi ngi ciy wane mi ngi ciy wane bakkan foraayu bakkan aaya ji moo lay xamal moo lay xamal foraayu bakkan moo lay koy wan moom lay wax si nii moo tax mu ne min ajli dalika ngir caay-caay googu xaabil làmboo banu israil roy ko ci moom katab naa lañ dogalee ala bani israil ci bani israil gi yëpp ni annahoo naka lay mbir tey mbir man xatala képp ku rey nafsan bakkan bi xayri nafsin ci lu duhut bakkan aw fasaadin wala mu bijji ak yàq fil ardi ci suuf fa ka annama xatla dafa mel ni ki rey na naa sa nit ña jamihan mbir mu ñu mboole seen wa man ahyaaha képp ku desal ak dund ci bakkan booba fa ka annama ahya daanaka desal dund naa sa ci nit ña jamihan mbir mu mboole seen de xam nga dund ahyaa yàlla rek ko man yaa ngi koy jàng mën a uhyi wa umitu waaye boo ne ku dundal mi ngi benn nit maa ngi mel dundal nga nit ñëpp nit kenn mënu ko dundal yàlla rek kay dundal waaye nag mën ngaa desal dund ci ci nit mooy koo xamee ne nii demoon na ba sapp bëgg a dee nga sowe ko loolu danaa dal suñ mbokki mool ya ca géej ga gis waa ji lab rek ma ngay nuur ak a nuur boo ko bàyyee rek mu dee nga nuur yow ci sa bopp wala jël sa bakkan jaay ko fexe ba lonk ko génn ak moom léeg-léeg sax mu sowe yow nga des ca yàlla nee na loolu boo ko defalee kenn nit mi ngi mel ni ñëm ko ko defal nga gis safara woo xam ne mi ngi lakk ci kër am na ñu fa nekk ay màgget wala ay xale ñoo xam ne wër na la bu safara wi takk ñiy dee nga dugg ci biir say pexe fexe ba génnee ñu mënta génn loolu xam nga yaa ko sowe waaye comme na malien ba defoon ca France ca ca étage ba mu fexe ba sowe waaja mu jaaree ca lañ ko defal loolu la ca nam waaye namut ci nga jël bakkan di ko roofal nit loolu yàlla rek ko man moo tax ngooy firee ka des ko desal dund ko desal ak dund boo gisee mu ne ku ko defal kenn mel nga ni defal nga ko ñëpp bakkan yëpp la yàlla dogal muy wenn xeet dund wenn xeet la boo ko boo ko desalee ci kenn fa mel ni defal nga ko ci ñëpp xeet la woo xam ne nangu wut séddaliku moo tax boo yëgee tey ñii dund ñëpp ñoo bokk lu ñuy dundee nooyi rek la moo tax bu waaj a dee loo njëkk a seet ndax est-ce que mi ngi nooy man kat jël naa sama loxo bi teg ko ci dënn bi mais nooyiwul de même que ñëpp ba ci xar yeeg bëy yi nooyi rek moom daal ku sa nooyi arrêté nga dee kon dund gi ndeke ñun ñëpp a ko bokk nooyi rek la léegi nag bokk gi ñu ko bokk tax na kenn koo ko xeeñ dafa mel ni xeeñ nga ko ñëpp kenn koo ko bijjël de jox ko ko mel nga ni jox nga ko ñëpp mën naa la ko misaal nu mu gën a leeree dund fa mel ni birig jàkka ji tey ñi nekk muy masjidu xalam ay birig ñoo jàppante ba tax tey ñun ñi fi dugg bu yàlla di taw tey duñ tooy bu naajee ñu dugg fi duñ ko yëg bu seddee ñu dugg fi tamit duñ ko yëg lu ko waral birig yu jàppante dund gi tamit dafa mel ni tey sama dund gi dafa jàppanteeg dund ak alaaji Keeba jàppanteeg sëñ Abdoulahat jàppanteeg Oustaz ma jamaka noonu la jàppante tey kat koo fi gis ñu ne bâtiment ba daanu na xamal ne dafa def fissure miir yi maanaam am móol yaa bàyyiwante bu benn miir bàyyee moromam ma nga ne dama dama koo xeeb jarul defar bu yàggee bâtiment ba daanu kon dund gi dafa mel ni birig dañ koo jàppalante yonent bi moo ko jàngale ci njàngale mu sew al mu maanaam al muminu lil mumini kal bunyaani yasuddu baaduhu baadan noonu la lépp mel waaye tamit boo gisee mu ne képp ku rey kenn nit mel nga ni rey nga àdduna bi yëpp ibnu abbas nee na rey kenn nit mënta tolloo rey àdduna bi yëpp ñuy dund ñëpp ci gravité waaye dafa bëgg a war na ñoo tolloo tolloo gi lim ci namm xam nga tey tolloo gi mooy tey même boo reyoon kenn nit te fekk yaa ko tey sariya li mu yoonal ci yoon dañ laa war a rey rek jeex na même boo rayoon adduna bi yépp li sariya teg ci yow tamit ba nga rayee kenn nit ñoo yem xatte dañ laa war a rey rek rey moom rey rek mënu mënu koo passé waaye mënoo ne maa rey kenn nit dañ laa war a rey wenn yoon ma rey ñaari nit nañ la rey ñaari yoon rey naa téeméer nit dañ la rey téeméer yoon dee kenn mënu koo def téeméer yoon moo tax mu ne kon boo reyee kenn ak nga rey ñëpp ñoo xem daanaka ndax ñoo xem xatte ci sariya beneen bi tamit boo ko xoolee nit ñëpp boo leen dàqee ci benn baay rek la ñuy dellu muy aadama ñun ñëpp njaboot ak suñu maam aadama lañ waaw aadama moo mën a di suñu baay ñun ñëpp njabootam gi boo ca rayee kenn tàbbal nga naqar ci xolu suñ baay di aadama aadama muy bàyyi mindee fi nag boo tàbbalee xolam boo tàbbalee naqar ci xolam bi doomam yépp di doom yoo xam jom war nañoo mer ci seen meri baay waaye ma ne ku xam jom ku ne bu sa baay meree war ngaa mer léegi-léegi seen gi da nga koy def ne kër gi tey neexul de kër gi tey dafa tàng de te war boo ko demee boo toppee tàng kër ga ya borom kër gaa mer rek jabar ja mer ca meram ma doom ya mer ca mer ma yow nag boo rayee kenn ni tàbbal nga naqar ak maanaam mer ci aadama loolu tamit dafay sababuwaat mu wàccaat ci mbooleem doomam yi moo tax kon wa- maanaam boo rayee kenn fa ka annama ahya naasa jami'an kon loolu lañ ci bàyyi xel kon loolu garaaw la Uh, rey léegi nag daanaka nit ñi dañuy foyee rey bakkan rawatina suñu réew mi ñu ne réew jullit lañ quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ te man baal man daal lim boobu jaaxal na ma bañ juddoo gudd ak ba léegi quatre-vingt-quinze rek ma ne boo moo tax léegi-léegi ma dégg ñu ne quatre-vingt-dix-sept ma ne waaw kay ngeen doole ñu ngi sax ñaari lim man am naa ñu ma tuubal ñeneen xam ne ñoo xam ne ñun tuubal muy tekki ndekki ñun defuñu fi dara ba fi suñ maam yi nekkee ak suñ baay yëpp quatre-vingt-quinze ñun ñu nekk feeg financement yeeg coow leeg waaraate yu bëri weeg ci rajo yeeg quatre-vingt-quinze kon lu ñu fi def waaye kon doole leen ñu ñaar nañu ne 97 bu ko defee ñun ñëpp ñu séddoo ko ñu xam ne def nañ fi dara nag waaye mag ñu góor ñu góorgóorlu dëree dëree jëlee diina ji ci zéro ba 95 nga dem jàngi ci biti amoo dara lu takk say rajo yi leen xas yaa ñàkk jom loo fi def ñu jëlee zéro ba 95 yow doon leegoo ci kenn buñ la sagalee sax lañ ci door a dolli ñaar te ñaar boobu du yow kenn yaa ñëpp a ko bokk su boobaa wax dëgg yàlla mag ñi daal hadiya lañ leen xamal ak ñaanal leen ci rabbana xfir lana wali ixwaanina li sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan moo tax daal bëggatuma kenn di wax 95 nañu wax 97 waaye ñi moom mu tekki ne ñun def nañ fi dara tuuti nag su ko defee kon léegi nag rey bakkan dafa bëri réew na suñ réew néew na suñ Sénégal gii weer wooy toog ba weer wi dee reyuñu rey reyuñu ay nit semaine ba semaine bi jeex reyuñu ay nit bis ba bis bi jeex sax reyuñu ay nit te boo ko toppee rey gu ñàkk fayda mais goob cigarette lañ doon xëccoo apprenti bi la dafa ko war a delloo juróomi dërëm mu ne ko delloo nga ma nangam ak nangam kaasab café bi la dañoo degee ca sta- station bi maa ko jiitu woon waroon na sol essence bi mu mujj nangam gën ngaa tardé de ca kaso ga nga jëm da nga tardé yow sa oto boobu moom xaw ma koy dawalati waaye bala nga koo dawal dina yàgg de te lépp yàkkamti goo xam ne du dara rek seytaane mooy ñëw rek waaf ki sa xol bi kon nañu ànd ak teey ata anii minallaahi wala ajalatu min asheytaan loolu la yonentu bi jàngale kon nag bàyyi na loola mi ngi wax wala qad jaatuhum rusuluna bil bayinaati moom lay wax si nii ne wala qad jaatuhum wallaay sa dëgg-dëgg dikkaloon na leen rusuluna suñ ndaw yi bil bayinaat ci la yu leer naññi summa inna kasiran topp lu bëri minhum ca banu israil ba'da zalika gannaaw loolu fir adi gisul la musrifuuna maanaam way yàq lañ ko nekk ay kàccoor bàyyi na loola léegi nag dafay jàngale la ñuy tuddee rëbboo muhaaraba muhaaraba nag yéen ñoo ñu yore et ak maanaam 4-4 bi di wër ci Saalum yéen a moom aaya ji yéen a ngi ci biir boroom kër goo xam ne xëy rekk tëj këram ñu jàpp ne am na dara dëkk dëkkandoor yu bon yu ko soxore signalé ko gaa yi yore seeni ngànnaay ñëw rek dajji kër ga bu riposté ñi rey ko ak jabaram ak doom ya loolu mooy muhaaraba wala nga nekk agresseurs yi yéen agresseurs yi yéen a ko moom yéen nga nekk ca suuf pont yi nekk ca potu làmp yi di ko nëbbatoo nekk ci gaaraas yu yàqu yi di bañ nit ñi yegg te ngeen koy def ñoo xam ne seen baay a ngi ci seen moromi baay yi seen moromi yaay yi seeni tànta ku riposte nga rey ko la lam yore ci ab portable boo ko boo ko laajee joxul la ko mën nga koo gor mu jaaree ca dee yooyu yëpp mooy muhaaraba loolu nag boo xamee ni mu méttee yàlla ak ni mu ko naqaree ak àtte yu diis yim ci def amul benn pen bu diisee ni li ñuy tuddee agressé maanaam pen bu des bu mel noonu yàlla mosu ko teg kenn moo tax ma bëgg yéen ñëpp ngeen bàyyi ko xel xam ne nit ko am jom dafay nangoo liggéey xut lu lew man cee dund dundal ci njabootam man cee yore soxna waaye yow amoo mel ni métier mutul métier guddi wala métier lëndëm di dogaale nit ñi ci lii nga dem di leen dogaale ñoom dañoo amoon jom dem di ko liggéeyi ba xëy am ko nga xëy ne da nga leen ko bëgg a xeeñ yow moomu kenn gënu laa bëgg lu yomb te kenn gënu laa bon te li lay xaar ci mbugal boo ko xamoon doo dugg ca loola comme nag yaa ngi ko doon def te deegoo demal nga tuubi yéen ñi may déglu yëpp nekk ay agresseur wala ngeen may déglu yëpp nekk ci àll bi di sàcc juri jàmbur yi di sàcc machine u jàmbur yi di sàcc maanaam bagage yi jàmbur yi bu gaa yi riposté ngeen rey leen loolu tey yéen lay yàllay wax ak te li ko yóbboo woon ci jamono yonantu bi la woon agressé lu fi yàgg la wax naa la aadama doomam agresseur la woon boo gisee yàlla nettali ko tamit dafa wane ne ñii ñëpp seen jukko yu bon yi ñu ngi ko jëlee ci jukko yu doomu aadama ji di xaabil yonantu bi dafa amoon ñu ñëw di tuub si ba bàyyee ko ci Bani Urayna ak Iklin ne dañoo feebar ba ñu ñëw dañoo wax ne dañoo tuub tudd nañ baatu seede bi yonantu bi gëm ko waaye léeg-léeg dana am secret yoo xam ne yàlla du ko dëxal du ko du ko feeñalal yonantu bi ca saasa biñ ne dañoo tuub dugg ci diina ji juróom-ñetti nit lañu woon yonantu bi boole leen ak jaabir ne leen dem leen yóbbu leen ca gëléemi sarax ya gëléem yooyu fukki gëléem ak juróom lañu woon ñu ngi nekk ca buntu Madinatul Munawwara mu ne bu ñu demee foofa nañ leen fa dëkkal ñi leen di fajee ci soowu gëléem yi ak seen saw ma ci la Maalik jëlee ne sawam gëléem sawam xar sawam bëy sawam nag dagan na ci loolu lañ leen doon fajee ba ñu leen fajee ba ñu wér ñu nekk nit ñu ñàkk ngor fukki gëléemi yonantu beeg juróom di gëléemi sarax ñu sàcc ko yémuñu ci ñi rey sàmm ba doon sàmm gëléem ya mi ngi tuddoon yasaar bañ ko bañ leen rayee nag yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne fu ñu mën di nekk na ngeen dem ngeen seetali ma leen indi leen fukki nit la yonantu bi délégué woon fukki jàmbaar ne leen gànnaayu leen ngeen dem seetali ma leen ñu dem seeti leen jàpp leen indi leen ci kanam sayyiduna muhammad ba ñu ñëwee nag yàlla wàccee aaya ji wax ni leen wala leen war a mbugale mu ne dagg leen seen loxom ndeyjoor fii bu paree ngeen ñaas ko boo ko daggee pare booba médecine avancée gu toon ba ñuy ñaw dañuy jël safara ta- tàngal ko rek di ko ko di ko ko di ko ko lakkee mooy tax deret ji dootul génnati loolu sax bi ñu ko bañ ba mu xewee ba mu xewee yàggut bu paree ngeen dagg tànkab càmmooy ba kuñ dagg sa loxom ndeyjoor sa tànkab càmmooy mbaa da nga xamati njariñ mu ne ko mbaa bu leen neexee ngeen def leen loola ñu jàpp ne aw gi aw taxyiir la bu leen neexee tamit ngeen yonantu bi nga pàndar leen daaj seen loxo ya bàyyi leen fa ay fan ni nga di leen romb nga door leen a rey bu la neexee tamit nga rey leen ba pare pàndar leen ba lañ leen a suul niñ gis ko mu mën leen a jàjj ci lu bon lii ñu def waaye wala wala bu la neexee tamit nga dem dàq leen ci suuf si dàq ci suuf nag mooy tëj leen rek tëj leen kaso waaye nit ku bon nga dàqee ko ci suufu Ndakaaru yóbbu ko ci seen suuf kay bu suuf soo sa yàqoo yaa ko yàq waaye demal nga tëj leen kaso tëj kaso nag lu fi yàgg la yonentu yàlla Yuusufa tëjoon nañ ko waaye gis nga tamit imaamu Xasaali yu nitu yàlla ku mag la tëjoon nañ ko Sayyiduna Omar ci xeetu yonentu bi mooy ki njëkk a tabax kaso yonentu bi nekk na fi ba génn àdduna mosta tabax kaso Aboubacar mosta tabax kaso ba Sayyiduna Omar ñëwee nag saay-saay yi bëri criminel yi bëri ci la tabax kaso di ca dugal nit ña waaye musu caa dugal ku ca war a dugg ndax saa yoo dugalee kaso benn seconde ku ca warta dugg sa jaamu yàlla yépp mënta fanq bàkkaar booba waaye boo génnee kaso koo ca waroon a dugal sa topp yàlla yépp mënta fatt place booba noona ndax kaso ko ca war a dugg rek moo ca war a dugg si Ahmed Tidiane si almaktuum dafa daan wax ne kaso alali gor la nattu alali jullit la moo tax buñ la tëjee kaso bul jàpp ne ku bon nga ku gore nga ku baax nga nattoob yàlla bi rek mu ñëw dal ci sa kaw alali gor la te tax mën naa dem ba yokku sa hitte su ko defee nag Omar tabax kaso ga yàlla nekkoon fii nag ñooñu bu leen neexee tamit na ngeen leen yóbbu ca kaso ya ngeen tëj leen waaye nag foofu moo ñu jàpp aw gi def ko muy aw taxyiir waaye la gën a wér aw gi duhut aw taxyiir mais aw tartib la su fekkee agresseur bi dañ koo jàpp mu doon agressé ba yàlla dogal yoon dem teg loxo ci moom ñett rek mën a am lay yoon di njëkk a seet mooy ndax mos naa rey bakkan ñaareel bi ndax mos naa jël alal ñu ne boole na ñaar yépp jël na alal li jàmbur ñi jël na seen portable yi ñii jël na seen kalpe yi ñii jël na seen ñaari junne yi waaye tamit en même temps rey na niw rey na nit ñu ne kon kook ñaar a koy xaar ci mbugal dañ koy pendre ba pare door koo rey loolu la ibnu qaasum gëm waaye nag ashab moom dafa ne nañ ko rey ba pare door koo pendre waaye moom dañ la rey dañ la pendre soo mosee jël xalal rey bakkan loolu mooy saxaate su fekkee nag da nga doon agressé bañ koy jàpp la yàlla dogal na jël nga alal mais mosoo rey benn bakkan atte bi moo taxaw sa kaw ci saa si moom yow da ngay dagg sa loxob ndeyjoor bi dagg sa loxob càmmooñ bi loolu mooy sa atte su yàlla dogalee nag da nga doon agressé lañ say yàgg lépp mosoo rey kenn mosoo jël alal li kenn waaye dañ laa jàpp su boobaa yow sa kaso taxaw na dañ lay teg ci kaso gi imaam mooy seet nag ñaari at ñetti at juróomi at fukki at lu tolloog sa caay-caay ga rek ak sa yàgg fa su ko defee mu door laa génne kon nag agresseurs yi mënuñoo mucc ci ñett yi nag kuy agressé bañ jàpp la moom faaw boo ko càmbaree bëri na ay dossier benn mos naa rey wala mu mos a jël xalal wala mos ta rey mos ta jël xalal ñett yi yëpp nag seen atte moom lay wax si nii ci alquran moom laa lay wax nii moo tax suñ borom tofal ca loo teg moo tax mu ne innama jasaau lazina déet fayu gaay nga xam ne yuxaaribuna dañuy rëggoo laaxa gaay yàlla yi dañ faa xasafee foofa awliya allah yi wa rasuluhu ñuy rëbboog yonentoob yàlla bi wa yasaw na ñuy dox fil ardi ci suuf ci yàq fa maanaam ci ñi si suuf fasaadan ci yàq fasaad bi maanaam mufsidina seen atte ba daal an yuqattaloo mooy lu dul ñu bëri ak rayal nañ bëril ak ray ci ñoom aw yu sallabu wala ñu bëril ak pandar ci ñoom aw tuqattaa wala bëril ak dog aydihim seen loxo ya wa arjulum ak seen tànk ya min xilaafin ci jàllawle aw yun fa wala dàqeef leen min al ardi ci suuf muy tëj ga daalika loolu lahum ñeexal na leen ci mbugal xisun ji muy gàcca bu leen nga ne daalika loolu xisun gàcca la bu leen ñeexal lahum maanaam fi duniyaa ci àdduna waaye wa lahum dal na seen kaw fi la aqra ci àllaaxira azaabun mbugal aziimun mu màgg ma mbugalam àllaaxira ma nag ñëwagut bu la yàlla jéggalul nga dem safara kon képp kuy agressé sariya dafa ne bu ñu la jàppee nga mos a rey mos a nangu alal nañ la rey pàndar la mbaa ñi pàndar la rey la su fekkee jël nga alal mosoo rey kenn sa loxoom ndeyjoor tànkab càmmooy su fekkee reyoo jëloo alal dañ lay tëj ci kaso yi lu tolloog sa caay-caay ga ak sa lu tolloog yàgg gi nga yàgg ci suuf ñu door laa bàyyi ñu ne faw nag mu mu am ñum setti nag ña muy setti nii mooy ñoo xam ne dañ doon agressé waaye yàlla dimbali leen ñi xëy rek teg seen i ngànnaay de bàyyi nañ ko tuub nañ buñ ne bàyyi nañ tuub nañ kenn jàppul leen sariya day càmbar lancé seen i dossier am nañ am nañ dossier ci commissariat yi ñu ne nañ seet waaw ndax gaa yi mosuñu leen leen plainte ci commissaire commissaire maanaam commissaire bu jëppal wala maanaam mosuñu leen a yóbbu conk ñu def fa ay plainte buñ càmbaree seen i mbir lancé ko ñu ne non non nag ñii nag yàgg nañ ci affaire bi mais amuñ fi benn dossier du dossier wu alal du dossier wu maanaam bakkan dañ leen di bàyyi ñu dem kenn du leen tëj kenn du leen dagg kenn du leen rey kenn du leen pàndal suñu lancé nag seeni mbir ñu ne ay la éwén rey nañ fi ni am nañ koy pa bi ñu doon wax falekat ñoo ko rey jigéen gee ñi doon wax maanaam Kër Masaar ñoo ko rey pa bee ñu doon wax yoof ñoo ko rey ñu ne te se gars yi seen i borom seen i borom plainte yaa ngi nii ah dañuy jël mbir ma jébbal ko seen i borom bu leen neexee ñu ne ñun dañuy laaj diye jox la ñu téeméeri gëlëm tañ dem bu leen neexee ñu ne ñun dañuy fayu nañ ko rey rek waaye kenn du ko reyee rey gi ñuy reyee ku rëbboo mooy maanaam pàndar la door laa rey mbaa rey la pàndar la amu ca joxe diye mbaa mbaa ñi rey la rek mu jeex ñooñu ñoo yore ñoo yore sa dossier bi su fekkee ne yàlla dogal na yàgg nga ci suuf di agressé jotuñ ci yow benn dossier ne rey nga nit gisuñ benn kalaame ne jël nga alli jàmbur dañ lay bàyyi nga dem rek julli ya nga fa doon faatak weeru koor yaag caay-caay goog nga doon def yëpp nañ la bàyyeeg yàlla bu ko neexee mbugal la ko yow man xëyaam bu ko neexee jéggal la mooy kuñ jàpp nag fekk na yow waxuma kuñ jàpp mooy yow yaa doon agressé yaa koy bàyyi ne man bàyyi naa kon yii moo taxaw mais buñ la jàppee moom ci ci agression bi yii ma wax la moom atte yi ma la njëkkoon wax yaa ko moom mais bu mujj bi mooy koo xam ne moom moo dem jébbale boppam man bana ne man banaa bu amul benn dossier nañ ko bàyyi bu fa dossier noppee nañ ko ko topp bu alal ak bu bakkan kon yéen agresseurs yi yaakaar naa dégg ngeen loola kon agressé duwul lu xoyof loolu nag ñu war leen a topp ak ñàkk ko topp moom la yàlla di wax si nii lum ca teg moo tax sama borom ne sama borom ne illa la lu ña nga xam ne taaboo tuub nañ min qabli an taqdiroo njëkk ngeen i jekko xam leen ci ñoom fax la moo xam ne ne ana laax naka yàlla xafoorun jéggalaa kon la rahimun yërëmaa kon la ñu ne agressé rek mooy loo xam ne boo ko bàyyee nga tuub wala ñu yëkkati pen ba teg ko ci sa kaw bàkkaar ba kenn du la ko toppati sax yowmal qiyaam même boo doon agressé def lu bon rey nga nit ba ñu mujj pendre la te yow jullit nga woon yaa ngi doon julli sa sa waxtu yi nga fonk ko jikko ju bon la woon rek bu ñu la xasee pendre ba rey la jeex na ah, rey ga dafa yóbbuwaale bàkkaar ba loolu danaa ci yegg si xam naa ne bu ñu fi yàlla indee suba mooy nekk dana nekk suñ da suñ duroos yi to yàlla nañu ci yàlla yóbbu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
LPD, librairie papeterie d'Araji, TQG.